le koy tambalé dañ guerre de positionnement muy guerre de lieutenant bi nga xamanteni némé nañ ko ci ñi nga leader Ousmane Sonko ñi le 25 février 2024, Ousmane Sonko dans le je crois que kan mo soulever question nga Diallo Diop le docteur Diallo Diop vice président parti bobu du RND bok ci euh, parti bobu nga xam dissoudre nañ ko muy Ousmane Sonko lancé na fii ne suñu génnee ci magal bi dañuy lancer ben coalition bo xamanteni dañ ko dippé ki nga xamanteni moy coalition Ousmane Sonko coalition bobu nak dañu bëgg xol kan mooy seen plan B plan B bi ginnaaw Ousmane Sonko yoon teg na ko loxo ginnaaw Ousmane Sonko salfaañe na àq ak yelleefu ñi nga xamante ne ñoo bootu woon ci moom ba doon ay militant Pastef te ñu dissoudre parti boobu Ousmane Sonko yàq këpp na seen yalwaan maanaam parti boobu li ñu jotu liggéey projet yi ñu jotoon teg ak xeex yi ñu jotoon xeex arrestation yi ci jot am yëpp kii di Ousmane Sonko tuur na seen yalwaan ci ñaari mbir bi nga xamante ni moom moo ko yóbbee boppam benn bi di làmmiñam beneen bi di tubayam muy lamine bi manam moy digantem ak ki nga xamanteni moy mooy Mame Mbaye Niang da publiquement Mame Mbaye Niang yóbbu ci yoon yoon dan ko bi ci top plein couvre-feu la bàyyi ñaari soxnam dem fofu ci ben salon clandestin salon de massage ay xalé yu ndaw yo xamanteni dañ leen don cagatuloo di leen jaylo sen bop mu dem fekk leen fa di leen tëddee ci pouvoiram ginnaw juge bi li mu délivré ci 2 ans de prison ferme yi ko condamné pour corruption à la jeunesse kibir biir yon top ko biko yon topé toppee mu amaat yeneen juróom-ñaari chef d'inculpation yu teguwaat ci ndodam ginnaw appel à l'insurrection euh, manam yu bëre yo xamantene ni na ci kaw manam vol de portable manam li fi xew 2021 ba tay ji saccage association de malfaiteurs terrorisme yooyu yëpp tegu ci kaw ba tay mu nekk sous mandat de dépôt mu jël ben, façon bo xamantene mom lay combattre muy grève de la faim alors que grève de la faim boobu c'est archi faux Ousmane Sonko musul def grève de la faim c'est juste une technique de communication ñi nga xamante ni ñoo top pour que mon pouvoir existe, pour que toujours ñuy wax turam presse bi Ousmane Sonko il existe mais si ci réalité tout le monde sait que Ousmane Sonko est mort politiquement parce que politiquement Ousmane Sonko est mort. parce que chef d'inculpation Il nga a ci justice ci euh, justice policier bi Frédéric Nappel Ousmane Sonko dina a un problème de justice avec l'État du Sénégal par rapport à l'État du Sénégal bu mu partie civile Madame, ci li nga ne fait jot mars 2021 2023 jëm ci walu saccage jëm ci walu 40 morts yo xamante amna tay J'ai ci dëkk bi jëm ci walu bien public yi nga xamante nañ ko ci bien d'autres. yo xamante ni nañ ko ci ay participation à des manifestations non autorisées troubles à l'ordre public yoyep mi donc réalité wax ci Ousmane Sonko est mort politiquement donc ñi fi taxaw tay Ousmane Sonko moy candidat en 2024 je crois que sont dans le virtuel comme ni koy waxé sa su ne mag bu di ndox sa soulevé na question boobu bi mu soulevé question boobu nag guerre de positionnement boobu moom muy gerde de na ci biir kan moo war a succédé kii nga xamante ni mooy Ousmane Sonko ñii ñi ngi naan biram Souleye Diop moo doonoon numéro de ñii ñi ngi naan. Bassirou Diomaye Faye ñi ñi ngi nan Guy Marius Sagna je crois que ñoo ñep tay duñu Ousmane Sonko tay jeunesse bi yaakaar bi ñu amon ci Ousmane Sonko na ba ben instant amna ño xamanteni top ñu Ousmane Sonko ngir projet bi dañu topone Ousmane Sonko comme Serigne ak Talibem dem nañu sax ba yaakaar ne que Ousmane Sonko de len liggey dem nañu ba yakar ni ka sax yenn yi du nenum nen parce que ni ñu don topé nit musuñu gis ku ko un leader politique dans ce pays kiko ko moy Ousmane Tounkara bi nek États-Unis toog na ba ne man ñun ñu topé Ousmane Sonko est ce que tey nañ ko ndax té man kuma xam en tant que self made man ma topp waa bay sol t-shirt donc je crois que lolu soulever na polémique manam kan moy remplacer Ousmane Sonko ci guerre de positionnement bobu muy liennaay je crois que tey y a un problème qui se succède à 6 mois avant les élections Ousmane Sonko est entre les mains de la justice Ousmane Sonko tay génnagul ci guutu bu mu nekk y a 1062 détenus yo xamanteni ñom aussi ñi ngi foofu kii moo ci bénéficié wu liberté provisoire muy Maimouna Dièye bi nga xamante ne mooy maire Patte d'Oie après bu mu amee intervention chirurgicale yaakaar naa ni problème boobu dafa soulevé mais benen problème mo ci soulevé wat muy ki nga xamanteni moy Ayib dafé l'honorable député Ayib Dafé nak l'honorable député dafa jog dal ci ki nga xamanteni moy Diallo Diop xamal na ni ka Diallo Diop ñom amuñu plan B amuñu plan C amuñu plan Z benn plan la ñom muy plan A muy kenn muy Ousmane Sonko Ousmane Sonko moy don sen candidat pour les élections du 25 février 2024 donc nañu guen ci affaire plan B plan A plan C plan Z kon donc qui di Ayib Dafé, di honorable député bobu tontu na kii nga xamanteni moy Diallo Diop bi nga xamanteni moy vice président RND bobu ginnaw bu mu yëkëté coalition bobu danañ ko bëgg taxol taxawal muy coalition Sonko boobu xamal nañu ko ñoom amuñu plan B kon Guy Marius Sagna mën na fàtte ay yaakaaram kii di Bassirou Diomaye Faye mën na fàtte ay yaakaaram kii di euh, Birame Souleye Diop mën na fàtte ay yaakaaram mais li ma ci jaaxal ñoom ñëpp ñu def plan B ñoom ñëpp dañu am problème ak justice kii di Bassirou Diomaye Faye fi may wax ak yéen mi ngi sous mandat de dépôt Birame Souleye Diop aussi amoon na mandat de dépôt dañ ko defal benn liberté provisoire ginnaaw bu mu fi yëkkatee ay kaddu accuser le président de la République Macky moytu lekk këram ba noppi kii nga xamante ni mooy Alassane Ouattara dama xamanteni sen plan A jamono ji mi ngi ci loxo yon sen ñetti plan B yépp ku ci nekk amna dossier ak justice donc lolu lu mata saytu la bala ngeen tan la plan B je crois que lu ñu mat mais qui di l'honorable député di Ayib Dafé mom dafa contredire xamna ni ka ben candidat la ñom moy Ousmane Sonko mo leen di représenter au soir du 25 février 2024 donc je crois que su waxé ni ka tay Ousmane Sonko du Pastef bi nga xamanteni injuste la néna na retiré liste euh, tour Ousmane Sonko ci liste électorale de l'honorable député c'est quelque chose de c'est imaginaire parce que batay notification je crois que Ayib c'est un euh, député il n'est pas au cœur de l'information ou bien il n'est pas très bien informé Ousmane Sonko a été retiré des listes électorales sur sa condamnation de deux ans ferme de prison pour corruption à la jeunesse euh, biñ ko jugé délivré verdict bi le 1er juin ginnaw Ousmane Sonko procès bobu taxawu ci naa leen Ousmane Sonko procès bu nekk taxaw na ci. procès boo mënte gis Ousmane Sonko taxaw na ci muy procès ak Mame Mbaye même su ci taxawul sax jéem na génn këram dem Ousmane Sonko biñ ko annulé le 16. lañ koy jugé mais maanaam procès am digganteem ak Adji Sarr te la Ousmane Sonko gàddaayu ne def naa d'obéissance civique dootuma wuy justice dem toogi ji Ziguinchor làqatu foofu parce que Ousmane Sonko nee naa leen ba illaa yow mi diina du mës a jàkkaarloog Adji Sarr Ousmane Sonko du mos a jàkkaarloog Adji ndax ndaxte dafa fen ci dossier bobu fenati fenati te gàcceem fofu la naroon amee moo tax Ousmane Sonko daw moy li ma leen wax rek jugement yagana am tribunal mais musuñu gis ben salle d'audience bo xamanteni préparé nañu ay caméra tek ko ci kaw préparé ay écran géant tek ko ci kaw Ousmane Sonko bu mu xamee ni que vidéo existe na vidéo bobu nga xamanteni le journaliste Momo Cissé mi ngi tok di ko confirmer à tous les jours à toute reprise man may confirmer vidéo bobu existe na Ousmane Sonko vidéo bobu la don daw pour ñu teg ko juge bi nak bi sukkundiko ci corruption à la jeunesse Mon xamna ci là lan la sukkandiku ba gis ay vidéo donc Ousmane Sonko nak su nekul ci tribunal bi amuñu sañ-sañ vidéo. Il vidéo yi fofu parce que mënuñu fa teg vidéo parce que question biñ ko don laaj moy ndax ki yow la wala du yow comme nekku fa nag moo teguñu vidéo yi moo souvent ñi am xel nañu posé wu question pourquoi bla audience Ousmane Sonko ak Adji Sarr ñu jël ay écran géant tek ko ci bir tribunal bi ñu wax waxu vidéo gaay yi di naan vidéo amul su amone dañ koy tek ñoñu xamuñu yoon naka lay doxé ñi koy wax ñi koy wax xamuñu lan moy loi xamuñu nit ku nekk lan moy akam ak yelleefam Ousmane Sonko dañ ko bëggoon defal procès bo xamanteni ne dañuy respecté àqam ak yelleefam ñak téwayam fofu ci tribunal ba ci procès Adji Sarr ba vidéo bobu la doon daw ndaxte Ousmane Sonko bañu paré Bonne parée procès bi la déclaré caravane de la liberté ne xolal nañ leen dem Dakar déloger ji Macky palais foofu lañ ko cag-cagee ca Koungheul indi ko ci barricade ko pendant 55 cinq jours dama bëgg cette année vidéo bi dellu si nga déglu kàppaa bi yan absent le jour du procès parce que vous nous taxawoon ci procès vous êtes d'accord avec moi que le juge a ju jugement de manière populaire la ko sur la base de de de ses yeux. de parce que li mu wax moo tax li mu wax dafa sur la base de quoi dafa ni déglu ma rek. des relations yu am ci diggante xale bi ak Sonko c'est des relations euh, des des des des rapports pervers des rapports pervers on mënuñu ko wax. te amul lu nga gis lu mën a wane ni li, ce pervers. Am, nga fi may non Sonko. le jour où il n'était pas venu. erreur bi nit def si si tu n'es pas clair non dis-moi, wax lu leer ah, non non non non il faut avoir le courage de ce que tu dis. mais toi aussi yo man mi ngay wax courage. Oh, non c'est pas clair Pas courage. c'est pas clair non parce que li ñu wax sois plus explicite. il avait les les les conseillers de Adji avaient une vidéo. lu tax ñu teg ci tribunal bi ñu teg ñu écran. une vidéo de quoi. déglu rek lu tax ñu teg écran. ah non une vidéo de lu tax ñu teg vidéo ñu euh, vidéo projecteur lu ah xamuñu projecteur lu ñu teg fa. nga fi gis ci tribunal. ñu ngi lay mosul am ci tribunal. day am tribunal c'était bu fekkee ni par exemple Sonko dafa taxawon on lui aurait posé une seule question. est-ce que vous avez eu des relations sexuelles avec la fille. su ne déedéet les gens évacuent la salle et le juge day taxaw woo ak conseil ak la cour ñu seet ndax loolu am na wala amul ci ci pièce bi nga xam ne joxe nañ ko mais su amulee su fekkee ni moom taxawul naka la comment se fait-il que muy taxaw moom. kii rek par ngoon comme ça rek entre kilifa gu day noonu ñëw di wan Sénégalais yi nii la affaire bi nii la demee nii la demee mënul nekk donc moom li mu gis mooy vidéo bu nga xam ne xale bi daf ko indi ngay vidéo mënul kenn munu ci basé wu pour wax ni viol la parce que li tax mooy parce que daf ko préparé te li tax mu préparé que expliqué ne que nee na dañ ko laaj pour mu indi ay preuve moo tax mu dem enregistré ko. waaw mais mais mais mais. c'est aussi simple que mais grand grand grand aussi simple. waaw mais grand mais dara quoi. c'est-à-dire que kon yaakaar ni ñoo seetaandoo vidéo bobu yaakaar naa ni si fu mu ko rek ci juge bi juge bi tay mënul tepp tepp tej Ousmane Sonko corruption à la jeunesse ci 2 ans xamal na ni ko mënul prouver viol amna na ci digganteem ak Adji Sarr mais mëna prouver ne que Ousmane Sonko séq nak ay xalé yu jigéen ci biir salon de massage bi ci kaw dolem ci kaw pouvoir kon juge bi ci loolu la ko mu dellu soit confirmer samay propos tay caméra yoy ñi tégon fo écran géant yi ñi tégon tay ci tribunal bi pour la première fois ngeen gis ni préparer ben procès tek fay écran géant juge bi su tagul won ay bëtam ci ay preuve ken du préparer caméra yooyu tek fof li tax Ousmane Sonko daw ci procès bobu nak je crois que mom moko xam donc tay je crois que Ayib dafa tay su taxawé di expliquer yenn wax yo xamanteni c'est imaginaire je crois que c'est Ayib dafa moom moo nekk ci imaginaire wala toujours dañu nek ci sen système de manipulation bo xamanteni mom lañu xam mom lañuy xeyé mom lañuy gonté ñuy gontee suba ngoon guddeeg bëccëg rax ci doli ki di Diallo Diop ay Diallo il faut que sénégalais posent la question kan vous Diallo la question su vous xamu len histoire au Sénégal xool manifestation manifestation 1968 kan mo doon def ñaaw téef ak ñombe yi dama bëgg ngeen dem xooli ji loolu neena naa leen peut-être di top Ousmane Tonko c'est la génération de 2000 c'est la génération de 90 95 98 99 mais tay su ngeen demee seeti kan moy Diallo Diop di ngeen ci am ay résultats yu leer su ngeen demee seeti yi kan moy Clédor Clédor Sène ngeen fàttaliku événement 88 yi kan mo fi doon def ñaaw téef maître Babacar Sey bañ ko reyee kan lañ ci jàppoon je crois que di ngeen xam kan moy Diallo Diop ak kan moy Clédor Sène ñaar ñooñu tay ci ban parti lañu ñu nekk ci ginnaw Ousmane Sonko lañu ñu nekk moom la défendre sur les plateaux matin midi soir aujourd'hui suñu né ay terroristes ñu ci biir dëkk bi je crois que lu ñu war a gëm la suñu né ay cocktail molotov ñu ci biir dëkk bi je crois que lu ñu war a gëm la su ma su dañuy préparer ay arche ay weñ yo xamanteni uniquement pour faat ay doomu adama bënn ay poto auto pour yak magal Tuuba bi je crois que lu ñu war a gëm la tey suñu né ya y 69 détenus yoo xamanteni ni ngi leen téye ci prison bi lan lañ leen ci ay acte de terrorisme ci lan lañ leen acte de vandalisme ci lan lañ leen appel à l'instruction, ci lan lañ leen téye déstabiliser le pays ci lan lañ leen téye manam saccager des biens de l'État lan lañ leen téye ci saccager des biens détruits je crois que ku am xel di déglu bu baax a baax war nga ko mën a gëm ndaxte da ngay xool ñan ñoo nekk ci biir ñan ñoo nekk ci biir parti bi tey suñu ma nee man Tandian bi c'est un professionnel de tueur en gaz Tang Tandian c'est un professionnel de tueur en gaz événement am manifestation am ay nit yo xamanteni dañ leen ray ci walu tueur à gage ñom ñoo def ñaawteef té constant Tange bobu mi ngi bok ci parti bobu nga xamanteni ni ñoo woote njombe yoy ba lolu am je crois que fuñu wara war baramu jëm baaraamu tuuma war na leer nañ nee na leen tay ñi tok ci télévision yi wala tok ci yenn plateau yi wala yenn chroniqueur yi di wax je crois que génération bobu de leen recc c'est des gens qui sont venus dernièrement dans le journalisme alors qu'ils n'ont pas pris le temps d'étudier. alors que journalisme mën nga ci ñew tay mais mën nga gëstu ji loo xamante ne na fi 1950 wala 1954 parce que journaliste journalisme, la laaj manam gëstu ji dem wuti ji culture générale dem def ji ay recherches, approfondir say recherche ba nga xamante ne di nga am ay éléments yo xamante ça yoy def say chronique wala say analyse da nga ko ciy donc je crois que tay ku cursus cursusu Diallo Diop nga méngale ko événement 1968 sengor bi fi nekkee ak Mamadou Dia xool leen ñaawteef yi fi amone ak crime fi amone kan mo ci nekkoon suñu né événement 1988 fi amone diggante Abdou Diouf Ablaye wad xool leen ñaawteef yi fi amone ak cocktail molotov yi ñu doon sanni kan moko ko doon sànni xool leen maître Babacar sey bañ ko rayé fekk ko ray ko ray bu civilisé ci biir otoon bu mu génnee tribunal kan lañ ci jàppoon kan lañ ci tëjoon ba ñu génnee loi Ezzan je crois que loolu yëpp fii la ñu fekk